war a sóoraale ndax euh, euh, boo xoolee euh, keroog bi combat njambaan dóoree mu daanu Tapha Tine moo bëri deuxième combat bi ak Sakka Dior Tapha dem na ba daan cek kon cek am na lu ko manqué woon te je pense que loolu rattrapé na ko foog ñu leen di fàttali ay bés pour que ñuy xam ne carrière dañ koy gérer parce que mënoo xale bëri sa deuxième combat dem ba ñëw dab la ba daan la kon je pense que victoire bi mu am lan la ko ubbil foofu la coow li ne ñaari revanche gi ci kanamam yu am solo yoo xam ne lu mu laal rek bu dul ñaari revanche yooyu euh, peut-être mën na mën na mën na mën na ko dérivé euh, mu jaar ci yeneen yeneen dérive muy kan revanche moom Bombardier revanche moom Tapha ku ci daan war na la mën a jël dañ ko amee bor te lii mu wane ah ñaar ñii am nañ xew kon je pense que yoonu làmb mi ngi bëggu bëgg tijjeeku à moins que beneen surprise ñëw parce que tey euh, ceg xelam war na leen ci Balla Gaye ceg xelam war na leen ci Balla Gaye su lay doog nag bon je pense que pour rectifier ko actuellement dina xaw a jafe non seulement écurie Sine Saloum dafa wéet dafa wéet partenaire bu dëgër bu mu fa entraîneur gisuma ko non seulement encore fi ko làmb toll actuellement ak morphologie bii ma gis mu yor attention dindi ko ci moom dina jafe néewuma carrière am fii la mën a yem mais je pense que foog mu defaat sacrifice bu méttee métti dem hivernal teel a aj kaakaam def hivernal bu dëgër teel a bëri euh, déwén te it bu mu wut choix combat fexe ñëwaat parce que tamit làmb soxla na kon euh, beneen combat bi gis nga diggante Balla Diouf ak ki nga xam ne euh, mooy Modou Anta réaction bi ñu gisoon ci Balla Diouf bi muy bëreeg Bathie Seras bi muy bëreeg Boy Sey bi muy bëreeg Sos ça fait huit ans euh, ça fait attention cinq ans gisatuma réaction boobu ci Balla Balla Balla Diouf combat yi mu mujjee bëri yëpp réaction la ko ñàkkee moom Modou Lo réaction la ko ñàkkee. mook euh, Ama Baldé réaction la ko njàkkee gis nga réaction bi moo ñëwaat ci Modou Anta kon je pense que Balla résistance bi ah attention amoon na ko perte na ko xaw ma nag naka la koy rattrapé euh, gis naa ko muy euh, signe de découragement déedéet làmb moo demee noonu da dem ba benn moment li ngay manqué ci combat nga koy xamee kon defe naa résistance moo ko manqué mais papa Balla ak Modou Anta lan nga bi. Balla commencement bi baax na baax na baax na c'est que Balla man dama gis ni bi leen rekkee ci tam temps yi mooy dafa gaaw énervé parce que Mour Anta gëddee dóor ko benn coup rek mu romb mu est mu romb rek après ku Mour Anta xobee mu taxaw ma ne booy dina ko songu de. bi ma ko dina ko songu bi ko Mour Anta xobee mu sigi da bougé wul déplacé fu mu taxaw ma ne bas laa taxaw ma ne ko bas Mour Anta dina ko songu. xam xamoon naa deuxième fois day xob rek daw daw song ndax mun anta amuloon sens ci xeex bi ndax Balla ko gën a ñor xeex foofu li am sens mooy fexe nu mu tapp lu koog Balla ñu jéem a bërante mu jaay ko jëm ko jaay doole genre demee noonu quoi moom loolu Balla tamit lu mu erreur boobu rek moo moom la def ci làmb ji te combat la boo xamante ni ñëpp ko métti lu moom combat la boo xamante ni dëgg yàlla Balla dafa doon am dam ci combat bi ñëpp ko yéene woon mais nag bon yàlla daal yàlla noppi na quoi yàlla noppi na mais it tamit moom Balla booy la waa wàllu 78 la xaw ma yu demee noonu li des mooy mu takk ay mu takk ceinture am entraîné ba ñu gisaat bàll bi ñu gisoon bu doon bàll bu doon ci kalaaf moo doon bëri mu anta kon kenn ko laam-laamee kon tey jii kenn doom ñaar te loolu yàggul 3 ans la li nga wax su dee toog rek laa koy waxaat li des mooy mu entraîné rey boppam xataraayu entraîné récupéré entraîné récupéré ba déwén mu xool day am résultat par force. bu ñu dellu si sa carrière. Mhm. Euh, doon nañu force di yéen teg Tidiane Tidiane aussi laaj laaj na fule yow sa digganteeg Tidiane Faye tey. waaw loolu dafa yomb analyser xam nga tey jii boo xoolee ñoom Sa cees boo ñaa Ama Balde Lac Rose ku ne da nga jël combat boo xamante ni boo ci génnee kenn du la bañ mais Tidiane Faye fi nekk nag di xool mbër yi nga xamante nii doo nekk si ay jafe ñoo xamante ni di combat yoo xamante comme yu bëri Balla Diouf dane supporter am ñëw ñu c'est parce que moo warul bëri Balla Diouf lu su bëggee bëri Paa Sow day dem bu tàng jër comme ni ko booy yi di génne booy bàyyi nañ ko fi ay ñoom Boy Niang ay ñoom Sa Thiès ñoom Lac li ñuy fayeeku Tidiane Faye fayekul moitié bi fayekul moitié Tidiane Faye lu mu mujjee bëre 5 millions xam nga 6 millions booy ñu ci ay 15 ay 20 de francs c' parce que ñu jël ay combat risque combat xamante ne nii mooy tànn xaw ma ñu koy tànnal mais loolu du choix boo bëggee boo bokk ci michu yi génn ci keccax gi. Hmm. da ngay dem xataraayu. ah du ko jëmee combat yi mii daan du ko jógee fenn booy boo ñëw booy ñëw di ko fi bàyyi nii mooy génération ñoom Lac Rose Ama Balde Boy Niang Sa Thiès Gouye Gui fi ko fekk li ñuy fayeeku ñu ngi fayeeku double ko ëpp. yow sa génération la. ah sama génération. Euh, euh, Tidiane. Tidiane ñoo bërendoo ñoo bërendoo Tidiane Faye ñoo mais il faut tamit mu sacrifié wu jël ay combat xamante ne nii dina ci génn du ci génn moo lay yóbbu ci kaw. dana ci génn du ci génn mu ngi ci keccax gi bu bëggee ci michu bi nag dana ci génn du ci génn lay dem xataraayu mais loolu day yomb nag léegi yow sama combat ak Tidiane Faye léegi yow yaay promoteur yaa koy tëgg Tidiane Faye mi ngi fayeeku cinq millions Papa Sow mi si ay trente millions léegi combat boobu yow noo koy tëggee yow yow promoteur nooy tëggee combat boobu léegi man maa waañ sama cachet wala da nga koy triple cachet bi yow kon Tidiane li mu fi def yëpp ma ko de mais dama koy jox benn conseil bu ndaw su bëggee def li gars yi def te booy dañ ko fi bàyyi de booy xam bu buñ daanante seen biir. dañuy dañuy dem seen yoon. kenn du leen bañ yow booy dañu ah non booy xam booy egsee si ñun. Ah, egsee mais jege nañ ko. jege nañ ko lool ndax ku ci génn ni dañ la fay xaalis boo xamante ne nii doo ko bañ. Mm. wala ñu def exploit boo xamante ne nii mooy boo tax ñoom. mais tey jii booy ku ci daan Lac Rose tey bu daanee nga ne ko Tidiane fay sax dootu ko bëgg dootul bëgg Tidiane da koy dootu ko bëgg. moom bu bëggee combat nag dès maintenant lay jël ci ñooñu ñoom Sa Thiès ak ñoom Ama Baldé ñoom booy ñaar lagros sangam sangam day jël bëreeg ñoom. Eh. génn ci loolu la ciy génnee mais bu ma koy jël combat du ma jël combat bu tàng non doo dem fi nga nekk ngay nekk rek boo xam ne dugg naa Fass daan naa Ousa ban Ousa nga daan ban Ousa nga daan daan naa Paul Maurice ban Paul Maurice nga daan daan naa Baalu Diouf ban Baalu Diouf nga daan loolu il faut ni ñi xalaataat ci hmm. ndax ñooñu ñu ci toll di dëgg dëggantaan di taj làmb ji ni nangul bëre ak ñoom boo leen daane ci ay jafe da ngay nekk ñoom rek mbër bu nekk ci jafe-jafe nga bëri moom daan ko du la yóbbu fenn. Eh, yaa ngi may dugal Fass. waaw moom loolu dafa dugg waaw mi ngi jël waaw yow loo loo loo waaw man combat boo xam ne bu ma ci sori ndax man dafa am fu ma féete dafa am fu ma féete am fu ma far muy Fass laa féete Fass laa far. waaw combat bi de dafa neex analyser su ma la sutee ëpp la doole dàq la xeex ëpp la lépp mburu làmb su ma ñëwee du ma calculer dara li ma la ëppee laa lay wan rek dem sama yoon. ah mais loolu loolu loolu ci làmb ji Gris Bordeaux bu comme li Mbengue wax fekkewu ma ko mais Gris Bordeaux boo naree dafay am laam laam mais digganteeg moo moo Gris Bordeaux ak Modou Lo nan tas faas. bu dee dafay laam laam mais mën na daan Modou Lo mu daan Modou léegi nañ jël faas Papa Sow jël cëram parcelle Lac Rose jël cëram Grand Dakar ñu jël tas écurie Fass. non waxuma dina daanaka daanu moom yàllaa ko yor. kon Modou Lo bu daanee Gris Bordeaux ba am de. non daanak daanu rek daanak daanu yàllaa ko yor. mais moom moom fii moom logiquement ci xelam. bu hmm. toog këram mu ko se naan est-ce que mën nag mënul. Hmm. bu ko naree def moom kon ñu xam ne kon mooy loolu bu ne daam laamee combat bi kon jarul soo ñu dem esat. daal Gris Bordeaux dafa war a jël ci Modou Lo. waaw amul leneen. man man képp muy ci làmb ji mu ëpp doole moom boo ñëw làmb ji boo tàkkasee ngeen xam ne bu arbitre bi sifflee maa ngi sa kaw. juma xalaat jël sama tànk ak wër ma ndoom bak sànq xalaatuma dara bal bi si damay ñëw amul may xalaat équipe bu la gën a diis du la xalaat si du xaar si dara euh, léegi dakk actualité bi daal mooy Modou Lo guy gi sawrla Papa Sow guy gi uh-huh. ou Papa Sow Baye Mandione waaw loolu nag promoteur bi choix la dama ne la mënuñu kenn mënu leen bañ lamb loo xamante ay lamb yoo xamante ni ñor la kenn mun leen bañ mais am na yeneen choix la de guerre de mi fi kenn ak kenn mi ngi fi te lamb ji tëjagul waaw Baba de bëggoon naa ñu bëre. bëggoon nga. bëggoon naa ñu bëre bëggoon naa ñu bëre ah. non bañu bañu ma sax bëre Baba ndax suma grand la tout ça wax jee bëri rek mais man ñu ma njëkk conseil ci làmb baaw yi da nga def carrière loolu yàgg na boobu maa ngi jàng école ki ma njëkk conseil tamit ñu daje benn daj daju commissaire boobu Pikine booy sax combat calaf bi jëm ci ut terrain sangam ak sangam mais lamb dafa baaxoo bu ngeen demee ba jëmmi jamono nag bëre war leen boole ngeen bëre dañuy teg affaire u ganaar lépp fee ñu bëre. actualité waaw actualité la mais tamit bon ñu war a tëgg combat bi moom du see xulóog ñëpp moom moom mënul <laughs> Aziz Ndiaye du ko tëgg. moo Gaston ñu ngi dem ñu ngi yéeg ak wàcc. kon yaakaar combat boobu tamit pour mu taxaw dina jafe. ah waaw mun na mais ñoo ñoo ñoo fi nekk kii moo fi nekk Gaston fi nekk Aziz Ndiaye ak Alaaj ak Alaaj Ndiaye waaw ak Ligue Nicolas ok euh, kon ñu ngi ci euh, feew émission bi yaakaar naa ne tey euh, am na loo émission bi loo xam ne na waaw loo bëggoon loo fàtte waaw xanaa di remercier ci voyage laa jóge te xam ne mbër bu amul combat yoroo dara di voyage bi moo ma jëndal billet jox ma argent de poche moo tax ma demee def un mois changement bi bëriwul bu damaa tiit ma man léegi ma ñibbi te mun ma am changement. saa demee mais nit ñaa ah, changé nga changé nga mais boobu man góomoon dama gisoon ne man daal dafa war dama waroon gis bu ma gisee ki la daggal billet jox la argent a poche boo ñëwee Sénégal bu la gisee dafa war a kontaan. tax na maa ngi koy remercier waat bu baax a baax ak booy André Senghor bi jël championnat Dubaï bi am am ah, soulier d'or am tout ça maa ngi koy remercier moom it jàpp na ci voyage bi ak ñu jàpp ci voyage yëpp maa ngi remercier di remercier ñi ma nekkaloon foofu Ohio Assane Thiam ak famem ak waa Ohio yëpp waa New York fàttuma la ñoom Gana Bira moo ma doon entraîné ak ñoom Ndoye Mor Sène bi ma dëkkaloon këram ak ñoom Aliou Touré ñoom Modou Ka bàyyiwuma kenn bu limee dinaa juum ñoom Cheikh Fall ba Cheikh Fall meen bu Sandaga xam naa waaw. Cheikh Fall meen waaw ñoom ñëpp waaw Cheikh Fall waaw Cheikh Fall waaw maa ngi leen ñoom ñëpp ku lim juum. aw ma seen fay ñoom ñëpp ndax taxawu nan ma toppatoo ma moo Sène moom yàlla na ko yàlla fay. Mm-hmm. gannaaw ma jàppale la wax dëgg yàlla. ak sa supporter bu ñuy wax Diène Diène day nekk ci. Pape Diène <laughs> moom dafa dof Pape Diène moom moom moom moom mu mel ci face nu mu mel ci face nu mu mel ci face moom moom yàlla na ko yàlla sutura rek ñu am ay ndam quoi loolu lañ koy wax. Euh, kon papa daal waaw bu ma amee avance moom li ma gënaloon ma bëri avant lamb ji tëj. waaw loolu moom moo ma gënaloon moom. su ma nee am waaw su ma nee am moom. bëggoon naa bëre woon Eh, jërëjëf promoteur yi kon affaire bango papa nee na bëgg na tëj làmb ji eh, saison bi laata ñuy jëm déwén kon mbokk téléspectateurs yi seen émission Roffo tey eh, ñëwoon fii ci Parcelles Assainies set xale bi nga xam ne mooy Papa Sow muy xale boo xam ne tamit làmb mënoo ko tudd tudd foofu nga boole ko ci nekk écurie Fass di naa Gris Bordeaux gis ngeen ñëw na wax carrière am fu mu jaar ak yëpp kon mbokk téléspectateurs yi fii ci parcelle Madoune Diouf lañ fi àndaloon ak Mass Mao Cissé ak fii Fifi euh, di nuyu nag suñu papa yi toog nga xam ne euh, ki nga xam ne mooy booy Sow di papu euh, papa Sow ak Paba suñu xarit moom it ñu ngi koy nuyu bu baax di leen gërëm di leen sant mbokku téléspectateurs yi fii nag lañ leen di joxe rendez-vous ba beneen yoon bàyyi leen nag ak français mbër bi nga xam ne ah bi yoon nag ah Thierno indil nañu français yoo xam ne man foogoon naa ne sax <laughs> mbër yi <laughs> ñu làkk yi français kon mbokku téléspectateurs yi fii lañ leen tàggoo di leen wax jërëjëf wasalaam. jërëjëf wasalaam. Thierno Ndiaye. Thierno danaan la dama la gis nga appel ko góos daw jël tànk bi sukkal bi ko ah, mu gane ko noo bëreeg moom gane ko bëre ah ko noo bëreeg moom ko sulli. <laughs> Ah? noo bëreeg moom. How are you? I very fine. Very much. Thank you. Et eh, suivez Mbeur sur la France TFM. TV France Mbeur avec TFM. suivez sur France Mbeur sur TFM. I don't care, I don't give a care, you know what I'm saying? Suivez la France Mbeur sur la TFM. France Mbeur sur la TFM. Aujourd'hui, Pakala, euh, vous avez lutté, mais vous avez battu ton adversaire par euh, décision médicale. Ouais, mais moi, je suis préparation, le combat, comme tous les plans. mais je suis remercie les dieux tu vas me donner le ndam je suis Ridis tout tout maa comment avez-vous lutté aujourd'hui mu ne. comment avez-vous lutté aujourd'hui ah, ah. Bonsoir Volcan. <laughs> Bonsoir Ber. <laughs> Volcan, vous suivez l'émission France Mbeur la TFM. Oui, oui, oui, oui. Euh, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, TFM. Balla Gaye, vous suivez l'émission France Summer sur la TFM. Moi, ça attaque. Lui, qui recherche pour moi. Moi, je partais. Je fais je devais 4 APS. Bonsoir, Modouane. bonjour père. mais qui est Modou Anta. Modou Anta c'est une jeune c'est une un jeune de lutteur de Thiessois oui. mais il est l'espoir de Thiessois. oui oui il est espoir de Thiessois. que comptes-tu faire dans l'arène. dans l'arène comme tous les lutteurs rek. anama mourir le conseil.

How are you? Are you fine? Very much, thank you. Hey, eh, suivez-moi.